mbokk benn ak benn asaabu cheikh naa tijaan jiitu alaaj tafsir caam del si nañ ci daara ci jaayir maan bi ci ñaari loxaaj bi ci xatam téeméer ak juróom fukk bi ak ñaar wax na ci bindu démb bi loo xamante daal bëgg naa ni ñëpp dégg ko ah, su ko defee ci barsaqiyatul osma ak li nga xam ne mooy xutbaaniyatul osma xaqiqatul xutbaaniyatul osma yëpp leer na démb léegi nag maa ngay jàll gën a leeral ah su ma xaala wax radiyallahu anhu yàlla mu xamal anal awliyaa naka góor na ma yàlla bi nga xam ne mooy wëli yóbbi asaadiqina ñu dëgguñu kullu waaye din képp kenn minu coom ah fi quwat yi nekk na ca dooleem quwatu mi at rajulin doole yi téeméeri góor wala yu yàgg ci xam-xam si di xëy kenn ku ne am nga doole téeméeri góor ah wala aarifoona ñi xam bi la ci yàlla ahlul alamul mulki ñi xam ne ñoo nekk ci alamul mulki mooy ma alam bi ñu nekk kon waaye ñu képp kenn ñu coon fi quwati ca dooleem quwatu salaasu min ak am nañ doole ñetti téeméeri góor ñoom xaarifoona yaa ko de xam nga kon siddiqoona xaarifoona yi ñu yaakaar xaarifoona billaay yi ñoo gën a kawe siddiqina yi ñoo nekk ci daari su wilaaya xaarifoona billaay ñoo ñoo leen seen ñoo leen supérieur xaarifiina billaay ñi nekk ci alamul mulki kenn ku ci nekk am na doole téeméeri góor wala alamul malakoot ñi nga xam na ñooy wala yu nekk ci alamul malakoot kul waaye din képp kenn min coon am na kootu xam si muy atara julin doole yi juróomi téeméeri góor ñi nekk ci alamul malakoot te mooy alamu numéro 4 alam bi ñu passé woon alamu mulki alamu numéro 5 bi mooy juróomi ah dégg nga de ah, rajulun wa ahlu alami jabarut ñi xam ne ñooy wëlu yi nekk ci alamu jabarut xar bi nekk ci jabarut bu kulli waaye bi minum quwatu saba miati rajulin am na dooley juróom ah ñaari téeméeri dooley góor ah wa quwatu kul waahidin minhum ay min ali alamil amri dafa mooy alamu amri ñi nga xam ne ñoo nekk ci alamu amri am na quwatu alfi rajulin dooley junne góor wa quwatu qutbul aqtaabi doole ñi nga ci ni moom mooy doole xutbul aktaab moom nekk na alfun wa xamsu miati rajulin ah junne ak juróomi téeméer doole e, góor junne góor ak juróomi téeméer góor juróomi téeméer alfu wa xamsu miati rajulin wa quwatul afraad xut doole yi xam ne mooy afraad al am na sabata asra miati rajulin am nañ sabata asra almati sabata asra miati maanaam fukki junne ak juróom juróomi juróomi juróomi téeméer juróomi téeméer ak juróom benn juróom juróom juróom ni téeméer waaw fukk ak junne kon Euh, téeméeri junne ak juróom-ñaari junne ci ay góor la sabatu atra mi at arajuli woo kootu ma faatul kunoos doole yàqale mooy ma faatul kunoos kootu kulwaay di minimum doole kenn ci ñoom kenn ku ñoom alfay rajulin ñaari junney góor kale kon junne ak jënga junne ak juróomi téeméer ak juróomi téeméer la kii ni ñaari junne a ah, ay goor kenn ku nekk inta, seen doole yi ni liñ emantee ay mana yooyu nag mana yooyu ñoom ña ko mos ñoo ko xam waaye xam ñu num toll moom doole yooyu ña toll ñoo xam wa maana alamul mulk nag su la waxee luy ma alamul mulk mooy fii nga xam ne fa la nguur gee daxee wal malakoti ak alam wal jabarooti ak alam jabaroot waalamul amri te mooy li wilaaya bi te alamul alamul amri ama alamul mulk foofu soo xaw ne sama yi maa ngi bàyyi ko asamaan ila àdd ba mm-hmm. lii nii luñ suñ diggante fekk asamaan bu bii moom lañ tuddee alamul mulk mm-hmm. waalamul mën a kot loo xaw ma moom mi ne samay ula ila samay sabiat mm-hmm. premier asamaan bi ba ci septième ba mooy alamul mulk waalo moom jabar soo xam foofu moom min samaay taabiyaat yi asamaan juróom-ñaareel ilal kursi diggante boobu lañ tuddee alamu jabar waala mu abri foofu moom minal kursi yi ila ars ba nga xam ne dem na aras ilaa ma war a woo ba cële ca gannaaw aras loolu lañ tuddee alam abri kon nag fa maanaam mulki boo ma alamu naasut boo ko dégg kon nag boo dégg alamu alamu naasut waaye moom siddatu kasaafati mooy ci yoo xam boo ci boo ci ja xamul sëxër booy doon booy jaar ci biir sëxër doo yaa ñaar jaar ci biir sëxër waaye xaalam bi ne loo ci dañuy yëganti dafa dëgër alamu dëgër bi lañ tuddee alamu naaso ah waaye moom ci dalu kasaafati waxoom ak tëjali biir ay saami kasaafati mooy fi ñuy tëjalee yaram yi dëgër yi mooy alamu naaso bii waaye alam yi ci des yëpp mën ngaa jaar seen biir jaar ba génn ba romb ko doo xam li nga xam ne boo duggee ci avion dina da nga bëtt da nga ëtt da nga da jaar ci ay iil de ay kii doo ko yëg mboolem alam mi nga xam ne mooy malakoot jabaroor am rek mën ngaa jaar seen biir ba jàll ba génn sa xam nag yëg nag a ah, tajur yaa nga xam ne mooy fi yëg yi kon malakoot malakoot moom xaalamul anwaar yi mooy payu leere payu leer moom ay leer rek fa nekk ndax leer leer boo ko doon jaar ci leer dana ko da nga ko ko da ko daj wayow tëjali mooy tëjali bi sóoril ay ajsaami alatifati photo yi yaram yu sew ya xam nga leer nii leer photo la photo la ca xaalam la kon nag moo tax photo buñ ko déggee buñ foog ne mooy photo bi ngay xool nii photo bi yaramu dëgër bi boo ko def photo bi yaramu leer loolu tax su fekkente ni caméraman man mi la bëgg maanaam borom appareil mi ngi la bëgg a photo il faut lor leer mooy dikk na la taf ah xapt la ca leeram nga mm-hmm. nga mu feeñale rek ca leeram nga loolu tax il faut que moom kay photo photographe dina am appareil appareil bu bu bu bëtiree jeexee doo amati leer xaalamul am xaalamul alam ba nga xam ne mooy alamul malakot bi mm-hmm. moo yore leeree ci la lay capte rek feeñale ca leeram nga mm-hmm. ah kon nag leer wal jabaroot boo ko déggee alamul asrar secret yëpp mbóot yi mbóot nag mooy loo xam ne yaa ngi koy gis te xamoo foofu la woo moom attajali bi soori ajsaami al qudsiyati yaram yaram dafa am yaram boo xam ne yaramu hadis la ak mu qudsiya boo déggee nag moom ñu tuddee ko mooy yaram yu set ya ah minal kursi mi ngi bàyyi kursi yoo minal korobiyin daal ya korobiyin waman daaw aliment maanaam ñoom kursi yu ak kurobin ñoom foofu dañuy bàyyi koo waman daaw ak mbir ah, ak mbir ak ñu yóbbu am ri soo ko xam na xuum artajali bi suuri ruuxaaniyati al qudsiyati dafa am ruuxu ñaari façon ruuxu ruuxu boo xam ne mooy ruuxu taq bi ruuxu xayawaan bi ak ruuxu xayawaan qudsi ruuxu qudsiya ruuxu fañ nekk moom lañ alamul amri ah almutanasati yu set xanit maari ci benn matière wa tabiat ak loo xam ne ay jikko benn matière ñu naan deret ak nangam nangam ak dina am jikko dañ caa set wécc mooy ruhaniyatu boobu wa kullu alamin bépp alam tajara fay naa fii nisbatu nisba min nisabil adrati loo xam ne al ilahiyati lii nag xaaral ñu mën a na xaalam bu ca dikk dafa am loo xam ne mam nga mën a ana mam nga mën a ànd ak téeb yàlla bi xaalamul mu mulk am na nisu boo xam ne moo ko mën a boole ci ak xadrat ilaahi xaalamul malakut am na nisu boobu mu jabarut am na nisbaam xaalamul amri xam na nisbaam ñoom ñëpp nag seen nisba yi dañu day nag ci ki nga xamante ni moo moo leen ndar képp ñoom ñoom juróom yëpp ñu dikk nag benn waaye ndar képp leen wan leen taw jëmmi di jëmmi E, mulku di jëmi moloko di jëmi jabarut di jëmi xaalamul amri jëmi lépp ca dal xaawu xama xama indiwul xaawu xaawu mu nag mu bu ñoom ñëpp mu wóor mu wóor ku woo mooma <laughs> ah xam nga indiwul wóor de kon nag woo dikk moo dikk na ñoom ñëpp dañu am mission ci moom la ilaha illa allah moo tax ñu ko moom rek ah koo man la ko man la ko man la ko man la ko man la ko tuddee xaalamul amri loo ko tuddee huwa rek xaaxoon ñu ne ko xaaxoon huwa huwa gi rek kon nag kenn ku ci ne am na lis boo xamante ni moom moo dikk euh, bokk ne mën na ca ànd ak moom ca loola cey cey intaha ma am laaw alay naa wala ku fekke rek moo mën a nekk ku fekke lii ku fekke mënu ko nekk li ah moo tax nag kooku nga xam ne ñoom lañu am lis ba ñoom ñeenti fañ am lis ba moom moo leen jox seen liñ liñ liñ soxla te ñoom ñooy jox ñooy ñoom ñooy nisle kat taxul ñu xam nag taxul xam naka yow nii fi mu ne nii sa sur bii sa fa mu jëlee ay tëbb sa roo gii sa xel mii sa xol bii fa ñoo jëlee tëbb xamul ko ñoom ñii nag noonu lay réeree ñoom it nisbu boobu fañ def nisba ñoom ñetti fa ñoo jëlee xamuñ ko moo tax ñu ne ma xamoo ma xamu an jaman wala soo nabi maa war a ma ma xamam kuréel bi mën a koo xam wax dëgg moom mooma da jox gaa yooya ak seen nisba kenn mën a koo xam mooy rek laa ya'lamu illaa huwa waaye nag mafaatul xaybi laa ya'lamu illaa huwa gis nga ko de kon nag gis nga caabi bu la neexee ñoom ñeenti nit ba yooyu mu nekk ñeenti caabi yooyu rek kenn na ko yore kenn xamut lu ci kumpa ga lu may moom ma yore caabi yooyu rek kon caabi yooyu ñeent la ko def démb ko jàng xëy bu gu benn hendoo mafaatihul kay bi mafaati caabi ñeent lañ kay bu ko kenn la xamuloon nisba yii la bëgg a jàngale mo mo da nga mul ko malakoon jabaroon xaalamul kenn ku ci ne dafa am collectif ji léegi nag da war a xam kan mooy caabi mulk buñ ko waxee caabi du caabi yi tije nii am na ku taxaw yaay yaa taxaw de ba kanam ba tax xam ne yaay jimmi bakkan ba taxaw na di jëmmi alamul mulki alamul malakut dafa am ku nekk caabi ba suñ ko waxee waxul na dafa am caabi bu comme mooy jëmmi nit yoo xam boo koy xam rek ne kii mooy jëmmi caabi ji rek daal di xam nekk ci alamul euh, malakut jëbarut dafa am ku taxaw di jëmmi ala jëbar jëbarut boo ko xamee kooku ci ngay jaar mën a tijji luy alamul jëbarut mu alamul aw dafa xam ne mooy jëmm jë su ko defee nag lii nag mooy mafaat yi caabi yooyu yëpp nag kenn xam la caabi ya ak xëy bu ko waaye nag mafatal xëy laa yéen ilal ilaahu moom dong moo ko xam ah kon nag lii nii lañ bëgg ñu xam naag suñ ko xamee nag kon nag nisbatun min nisbil adati al ilahiyati intaha ma am laaw alayna radna anu wa adama xal ah, da nga alaaw amin suma xaala wax moom cheikh radiallahu anhu cey waay waay man de waxuma dara wéedu Cheikh Tidiane moom waxuma xayu ca nekk moom waaye nekk ci kër Cheikh Tidiane te xamoo kuy Cheikh bay dugg ci ay xamuloo sa bopp xamoo Cheikh muy nag réy réy ko ñu waxal la ki koy wax moo <laughs> ah, xam nga muy xayu réete moo tax ku yàlla euh, suppar mi ci bañ a dégg dëgg gii war ngaa seetaat sa bopp ndax man ci jàmm nekk ndax li waxuñ waxuñ waxuñ waxuñ waxuñ ndax mas nga fi dégg maa ni oustaz gi wala dégg nga maam bàyyi ma ak ak i mbokkam wala moom mas nga fi dégg ku ñu ki nga xam ne ñoo ko ñoo ko bokk ñun ñëpp waaye dikkal bul déglu oustaz gi déglu waxtaan wi teew dem dox dem dox say soxla bu la neexee jëriñu suma wax radiallahu anhu al aslu lii ci saan fii kulli sëratin ci bépp ni ci kaw bi lii cosaan ci benn benn bu ñu ne fépp nag mooy par benn benn xam-xam yi par benn benn am am am yi lii cosaan ci kenn muy sànqaleñet muy me muy muy da nga ma matta teeñet wala lu ko gën a tur yooyu lépp mooy par fépp fépp yi fi kulli sarfi mi ne kon hiya moom ah martabatun li xàq yi koo ci gis rek martaba xàq la melentaan nii dafa am lu muy liggéey làqu martaba am la léegi la muy tuuti tuuti soo ko tegee sa tànk xam nga doo ko yëg mu ne cuut màtt nga tëb mi ngi lay wax ne ah maa ngi lay xamal ne kat yàlla nga doon tooñ <laughs> ndax yaa ngi war sama ko war a war ko ah kon martaba moo martaba la mm-hmm. nga tëdd ba guddi lan baa ngi yor ay matt mm-hmm. yàlla matt nelawul mm-hmm. yow ngay nelaw mu ne cuut yé waaye doo jóg jaamu yàlla ñun ñu ngi nii di jaamu ñu ngi def suñu liggéey liggéeyam la nekk de <laughs> ah nga sol sa mbubb mi tey ñu nekk ci biir yow yow yaa ngi ni sol mbubb mi da ko noosee te man yéen da nga maam te lii keroog nekk ñu nekk ci noos mu ne cur mat ñu ne i mu ne ah, yow noos bi nga nekk bàyyi noos lii du noos lii du du kër ak noos ah waaye itam xanaa xoolal ñun ñi nga xam ne ñu fi nekk fii ci sa sa biir mbubb mi nga xamante ni mu xasawee ah laata boo dégg am matt foofu matt bu nekk rek ah. mbu mu xasaw lay doon ak mokk aw moom yi ah, waaw mu nekk ci bopp sa si ne bopp jigéen ñi nga xam dañ koy tey tey yaa ngi ci biir tey yaa ngi lay jàngale hee yaa ngi ma yeenu dëng xam nga xaw xam nga xeer ah mu lay matt ngay xàq wokkut rek kon nag da nga wane waaw ki may wokkute ki may ki may kañ ki ma matt ba may wokkute kan la lii yëpp jàng biir mën nga sa biir ah. lépp kon loo fi gis rek martabatun min maratibil ak loo gis rek bul yaakaar ne yàlla daf ko indi pour neen de ah déedéet lii de Cheikh Tidiane dëgg dëgg yàlla asas lu kulli wa sarati mi la kon hiya martabatun fi acaloo bi ma saa la ko neexee min afari jow yàlla la ko neex ci ay jëfam la koy feeñee moo gis nga jaan ma fay feeñee ci jaan daas ba yëpp mu ci gémmiñ gi mu géej ci nag acca koo matt rek dangaar ja dugg ko acca ah, gaynde acca bukki koo gis rek tëjëli la yaa wax benn marto boo ne lu ko neex mu feeñee ko acca marto del daaj acca eh, ah, eh, kon kenn ku fi nekk rek yetta jàllaat fi abimaasa min afali wa akami ak yaa xamante ni mooy ay atem wal xalqu kon bindee fi kulluhoo yi kulluhum ñoom ñëpp masaayilu ahkaam yi ay feeñoo ko ay ay ay atteem lañ ay ay atteem kon koo fi gis mësër la ci masaayilu attekaayu ki nga xam ne mooy attekat bi loolu tax na boo àggee fii boo àggee fii ci xam yàlla innama yaxsa laa min ibaadi boo ko déggee mooy ñi xam dëgg dëgg dëgg gis matériel bii nga gis policier ak euh, casque ba nga ne i kii naa ko moytu ne ko moytu na koo nit de jalal ba ngay moytu na ko moo tax képp koo xamante ni xamuloo autorité nguur nit ñi nag say Sénégal dañ dem foofu ne politique politique am nguur jotuñ dara politique jotoo doog gendarmerie jotoo doog police jotoo doog armée jotoo doog dara moom liggéey bi may liggéey jalaali yàlla boo xam ne sa amuloon nguur gi sax ñu taw buur buy nekk buur autorité sax baa doole bay mucc autorité wala walaay def walaay na saba arum bi ba di dafa tere su ma jëloon ñii défense la ñu ne kon day kon nag bul yaakaar ne police yi nguur gi moo ko taxawal police yi déedéet malaakaat malaaka yoo xam ne ñooy yow yow sa bopp malaaka yi lay gànte ñooy si sécurité bi nga xam si du amul sécurité boobu doo génn kon nag nii la malaaka yi gàddee nga am sécurité noonu la yàlla defee nag kasaar gi ñu am ay sécurité kon nag doo gis mukk euh, benn euh, tëjëli dañu nekk masaayirun ahkaam yi wa kamalaati uluhiyat li mooy wax ne eh ay yàlla moo mat ay yàlla moo mat policier gendarme douanier dégg nga maam sapeur pompier ah en sa en sa sécurité xam nga ne boo leen métier yooyu soo ci doxalee na la yàlla santee doo ci am kii métier métier bi nga xamante ndaxte douanier su fekkoon ci ne tey amuñ frontière bu yàq buy toppatoo économique mm-hmm. kon ah économie bi du ba kon bo fa nekké bo fa nekké da laaj njariñ ñi la indil ah ñuy du bëgg a dugal fraude bi bëgg a dugal yu bonni yaw bo dikkee ko bëgg a dugal ko lu bon du fi dugg ah kon ko ba nga kon nak police yi nga xamé sa sa soldat yi nga xamé bu ay ki dikkoon ñoo défense réew mi duñ dugg ci xam nga baax nañ fi dé kon nak lolu autorité bobu moy li am kon nak lolu kama latu uluyati yët day wane mat mat Fala Tra ma ne wax naa la ko maa ngi koy waxaat Cheikh la ko wax ne mi ngi ma mi ngi ci cent cinquante deux bi Fala Tra doo gis saratan benn pepp fil kaw ni ci nekk gi xaari jot bu génn an asar amri doo ci gis dara lu xam ne génn mbir mi ma wax nii amul loo gis picc mooy naaw amul loo gis muy dem di nekk ci service yàlla fama sama nekk fa nga fa foofu yëpp ila kamalaatu uluhiyatihi lu may mata uluhiyatoom laahu xaqu uluhiyatoom ba xaqu uluhiyatoom ba moom moom mooy daw de xaqu uluhiyatoom ba loo gis rek uluhiyatu xaq bi nag moom moo tax ñu ne ko ilaahukumoo ilaahukum ilaahun moo tax ñu ne ko ilaahukum seen ilaahu bi seen ilaahu bi ilaahu waahid moo yéen a am de su ko defee wa yëstawi day yemoo gaasal may may daan bii def bii alxayawaan yi ñi nga xam ne yor wal jamaadaat yi nga xam ne duñu dëgër wal aadami ak doomu aadama wa xëy ak ñu ñii ñooñam képp képp kenn koo fi rek martaba ci martaba martaba bi gën a koy ci martaba yi nag mooy martabatu aadama yi wala xat karam naa akay ah lii nag doomu aadama mooy tëjali boo xam ne dafa dikk moom wane li nga xam ne moom mooy tëjali yàlla yépp na nga xamante ni xàqu tëjëliyaat yëpp ay tëjëliyaatu uluhi la doomu moo dikk war ñu leen moom mooy jëmbi tëjëliyaat yooyu yëpp ndaxte boo gisee marto ku ko liggéey du doomu aadama ko liggéey du doomu aadama léegi euh, euh, euh, ku ko liggéey du doomu aadama oto ku ko liggéey du doomu aadama loo fi gis nag anam ana xaar ku koy topp ko moom du doomu aadama ñoom béyeg nag yooyu yëpp kooku moom du doomu aadama kon nag jikko yooyu nekk ci saaro yëpp jikko yooyu yëpp mi nga daj ci doomu aadama moom mooy jaan moom mooy jiit mooy jànkalaar moom mooy yëmb moom mooy lépp lépp lu nekk jikko yëpp ci góor mu ngi dal ci doomu aadama bi loolu nag moom lañ daje booy xaaramal asmaan mi nga xamante ni ci la jox yëpp tey lépp loo gis rek yaa bon ni kii moo xaje kii moo mbaame kii mooy bon ni nanga lépp jikko yëpp looy xase looy gaay mu ngi ko mu ngi ko tudd ci doomu aadama moo tax ñuy moytandiku nag ngay jël jikko joo xam ne jikkoo nit ko jikkoo ko nga ko jikkoo nga gis ku baax nga ne ko yaari xaj tooñ nga ku baax nga ne ko yaa baax jaam nga yàlla ah? ku bon nga suturaal ko xam ne tijjali mu tijjali soo aji la nga bañ ko xas ah ba tey jaam nga yàlla ndaxte ka nga xas ko yow mën ngaa xas xas ko xam ne tijjali uluhiyya ndax nga xas ne du tijjali uluhiyya moo tax fii ngay am ba nekk adib bari nga am tiggin ci tijjali yaa ba booy boo gis tagg ngay gën a bëri ci ay xaste ndaxte ka nga tagg rek ka nga tagg moo moom tagg yi ka nga xas nag ka nga yaakaar ne moomu xaste it moomu xaste it borom xaste yi koo tagg nag ah, kan moo tëjali ah, fii kan la ba nga naan di mooy doomi nangam ci ah, moo tax ku am ñu ne al muslimu man salima al muslimuna bi lisaanihi wa yadihi musulman daal mooy koo xam ne làmmiñam wa ak loxoom nit ñi mucc nañ ci ndaxte làmmiñ mooy xaste loxo mooy def kon nag ñaar yi boo fekkante rek la ko ah dañ tuddee musulman waaye ñaar yi fekkante ni mucc ci ñaar yi lu yàqu ci àdduna làmmiñ moo ca dugg loxo jox sànni xere xere xere jox rek ñaar yi kon nag addis bu tuuti la bu yaatoo yaatu yaatu kon nag lii nag wala farqa fil aadami bayna al mumini wal kafir fii bari ne ci diggante doomu aadama yi amul diggante ku gëm yàlla ku yéeféer fa innahuma fa innahuma naka ñoom ñaar mustawiyaani ñoo yemoo fiasal bisaar laltu bii bi ci dikkee laltu martaba bi waaw léegi yoon yi ak oto yi kan mooy nooy indi martaba bi nga xam ne moo ñu defal lii ak courant bi nga xam ne ci lañ nekk tey ku ko def di ñoom kon nag martaba la ñu wax ne ko eh kaay dikk nekkal maam yi maam yi eh, doomu aadama yi kaay tafal defal oto defal acca defal kon ñoom dañ dikk ñuy matériel comme pièce boo jël di ko dindeew ay boulon ak di ko wéyee ay boulon noonu lañ fi nekkee ñoom ñi nga xamante ñooy ñooy scientifique yi nga xamante ñoo def yooyu yëpp ñoom ak julit bi ñoom ñooy émoo ci lalt bi nga mooy ne mooy tëjëlib xaq tëjëlib tëjëlib tëjëlib uluhiyya ñoom ñëpp ay tëjëlib uluhiyya lañ tëjëlib bi dafa dikk ñu ne ko moomin tëjëlib bi ñu ne ko kaafir ñoo ci am wa yàqu dafay nekk nag xaalaa xaasal asli ci biir cosaan fir kaafir yi ci kaafir ak taasim moo tax nag fii nag moo tax booy fonk yéefir ci façon bii nga ko fonkee de du fonkee nga ko céefir de te nga xam moo ko feeñee xeexee nga jox moo tax nag gis yéefir nag comme yow dama koy rey wala koy duma déedéet ni nga gis yonent bi ni waxee léegi boo demee ba nga xam ne jikko yi nga xam ne moom lañ yaakaaroon ne kii dina ci baax jikko yi daf ci seen wécc ñu ne kii na dëgg rey leen ko léegi uh-huh. li ko taxoon nit li nit nga ko taxoon dikk mooy baax ak defar ak gëm uh-huh. léegi mën a co am ci baaxu ci suufa baaxu ci biir baaxu ci biti ñu ne dagg leen baax ba léegi kon nag moo tax yéefér wala xat karam naa ba ni ba ni aadama waxoon na waxoon na karam naa umoomi ni ak déedéet ba ni aadama kon nag fii ci marta bi lañuy ñuy jël nag dala ko ci sànni le andoo ah naxoon martabatun moom xiifiir martaba la min maratibil xaqi ci martaba yi dëgg yi kon nag wal islaalu toroxal ko wal ihanatu ak doydal ko wal sawlatu ak cong ali ci moom lil mumin ci mumini mumini yi min akaami tairatin ma nga bàyyi ko ci at yoo xam ne dañoo dal si bees ali buñ toogee ñu ne moomin toroxalal xiifiir doyadal ko songal dagg boppam ay atte yoo xam ne dañoo gaar si waaye du ci cosaan nag du co du dafa gaar si nag lu ko gaar si mooy indi nag ki nga xam ne bañ ko bindee la taxoon defut liggéeyam defatul liggéeyam jox naa la loi léegi gannaaw jaamoon na man ni yow yaay sama deuxième personnel yow laa dénk sama xilaafa kon nag yow laa jox léegi toroxal ko mu nekk sa jaar lii kat moo indi njaam ci ku dul ab yéen ñu ko def na jàmm ñu ko def loolu waaye lu loolu kenn du ko def jàmm kon nag dafa nekk min akaami taarif àll yi laa da nga laa taxa dama kon nag du màbb xawaay du li nga ne mooy bu cosaan la lii gaar si nag du màbb cosaan la mooy mooy xéeféer bi ah mu dikk martaba ma ba tey ma nga def laa am na asloo ndax cosaan laa yenn di du màbb mukk wal akaamu ate at taari at yi nga xam ne dañoo war si xawaari dun dañoo gaar rek kon nag wal mat joxoo ba ñuy dellu fi saalik loolu al aslu cosaan ci la jël léegi laal awaari bi li nga xam te mooy gaar rek kon nag bu déclaré ne attey gaar gaar dikk na uh-huh. ñun dañuy attey gaar gaar dañuy dañ ci cosaan la mooy lan kii ci maratibul xaq kon nañ ko jox moo tax boo gisee kon nag ñitti yàlla yi nga déggoon yonent bi de yonent da da jën boobu ni ko tey la yahudi daan jëflante ñoom martabaab xaq wala jën kon nag teg na ci wut bi waaye su fekkoon def li ko bon baaxul yëfeel la baaxul déet ñoom duñ fàtte cosaan ñoom moo tax nitu yàlla da ngay dégg ñu ne wali ñoom nangam nangam déedéet wali du fàtte cosaan kon nag lii mooy kii ñu taxaw foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ay waaj